base yu mel noonu ñoom mën nañ wax ne biir Sénégal tey y'a temps ci suñu ay ndaw yu nekk ci biir réew mi ñii ñoo ngi ci secteur tel ñii ñoo ngi ci région tel ñii ngi ci ville tel am na lu bu xam ne bu amee Sénégal sax ñoom ñu recevoir ay texto wala ay mail liggéey boobu war nañ ko def beneen bi nga wax lu solo parce que ñun aussi malheureusement ça suñu mën naa sa peut-être colonisation bi la ba léegi rek mooy ñun booy tukki boo demee par exemple euh, Afrique pour man o gën a réew mi mooy ki gën a rek mooy ki dem Europe. Mhm. wala Amérique. même yow bu booy. parce que Afrique la aussi. waaw waaw je suis d'accord dans ce cas on va dire que le monde est un village planétaire dans ce cas-là. Mhm. mais c'est pour dire que comment on fonctionne. boo xoolee côté immigration 80 pour cent sénégalais ñoo ngi Afrique 20 pour cent yi ñoo nekk Europe nekk Amérique mais ñoom ñoo ñu gën a visible et pourtant milliardaires yi ñoo ngi Afrique moo tax bu mu dégager les 12 milliards 500 millions dégg nañ ñu ne waa soxlawuñ ko dañ ko def ainsi de suite ma nekk déet mën nga wax ne soxlawuma ko mën nga nekk ci réew nekk réew boo xam ne également am na ay aides yoo xam ne réew boobu di ko jox ñi fa nekk. mais peut-être malheureusement am na ñoo xam ne peut-être amuñ ko wala pour ñu am ko état boobu il est obligé mu jaar ci ay association oui mais objet objection. may mu daaneel peut-être rek dina ko dina ko accordé quand même s'il vous plaît s'il vous plaît. man maa la ko ñaan allez-y allez-y et je comprends je vous remercie de votre élégance. je vous en prie c'est-à-dire tout à l'heure boobu ba léegi je vous remercie. je vous remercie de votre élégance. man nag dama dégg. je suis honoré. en fait kii dafa kii dafa poser une question. soxla chiffre tout à wax nga quatre-vingt pour cent wax vingt pour cent nag quatre pour cent yi ñu ngi Afrique vingt pour cent yi ñu ngi nangam y a chiffre de douze milliards à distribuer à la diaspora mais ba léegi sur la question à savoir ñaata sénégalais ci ñi ñu war dimbali bu ñu donnee pas un chiffre exact mais bàyyi ma ñëw loolu lañ soxla bàyyi ma ñëw Euh, euh, ma ne la mm. mm. moo tax ñu ne fu ñu définir mm-hmm. ce qu'on appelle la cible prioritaire mm-hmm. mooy ñan ñoo gën a yelloo xaalis boobu mm-hmm. parce que boo nekkee dëkk boo par exemple même boo liggéeyul sax te am ay kayit actuellement nii dina am loo xam ne ñoom ñoo la koy jox nga dem Italie am na fa. nga dem Espagne am na fa. Portugal dem na beneen ci période bi amul ku am papier amul ku amul papier mais aide bi dafa war a laal ñëpp muy étranger. muy ñu fa dëkk. donc ñooñu naturellement mën nañu wax ne ah aide bi kat ils sont pas prioritaires. yaa ngi mm-hmm. mais am na ñoo xam ne lu ñu naan vendeur à la sauvette par exemple waaw. Ah. yoo xam ne yow boo xëywul dem peut-être Tour Eiffel wala fenn ak feneen. pour nga dund ñaari fan wala ñetti fan dina xaw a jafe. pour mu leer mooy ambulant. mooy ambulant marchand ambulant marchand ambulant. yoo xam ne da ngay dem am coup war a dund ci. te également dimbale ñeeg ci biir réew mi. sa njaboot bi nga bàyyi mi ngi fi bàyyi. ñooñu il faut ñu bàyyi leen xel bu baax. mais kooku nu ngeen di def ba teg loxo ci moom. ci laay ñëw. dinaa bàyyi ma joxe cible yi après ma ñëw ci mécanisme bu ñu mettre en place boo xam ne aussi soxla nañ aussi. seen proposition seen idée parce que benn xalaat dayul. Mm. ma ñëw ci liggéey bu baax a baax. cible prioritaire boobu aussi dañoo dugal ci ñoo xam ne ay sénégalais lañ mais dañoo demoon bitim réew ci ay raisons diverses. Mm. mais ay court séjour mën na nga dem pour faju ji par exemple mën nga dem aussi pour mission mën na nga dem pour seeti sa doom wala sa tel mais bu ñu tëjee aéroport yi mu fekk la fa ah ñooñu il sont bloqués ci ay pays am ñoo xam ne dañoo ko transit amoon nañ ñu jógee Brésil dem ba Addis Abeba. affaire bi fekk leen foofu on a tout fait accompagner leen ba ñu egg si Togo état actuellement moo loué moo leen loué seen hôtel di leen accompagner am na équipe boo xam ne sax dafa demoon Inde bloqué foofu boobu aussi suñu ambassade ñoo la di jàppale bu baax baax mhm. ci réew yu bëri am na ñoo xam ne ñoo ngi Maroc. RD Congo am na ñu fa. am na RD Congo ñun on a mhm. voilà cartographie yëpp. Mhm. donc loolu boo amee a demandé à nos ambassadeurs de tous ces Sénégalais. ñu mm-hmm. compilé ko xool assez rapidement et de manière urgente nan la ñu mën a def pour accompagner leen ci phase bi ñooñu mm-hmm. priorité la. am na aussi ay composantes boo xam ne xam nañ leen muy étudiants yi ay xale yu ndaw yoo xam ñu ngi bitim réew. Mm-hmm. am ñoo xam am nañu bourse am ñoo xam amuñu bourse amuñu bourse mais peut-être am na ñoo xam ne seen. parents yi seen loxo jot na ci ginnaaw moo ngi leen di envoyé mais am na yoo xam ne sax même bu ñu amee ay parent yoo xam ne am nañu xaalis dañuy def lépp pour am ay petit bulo pour soulager parent yooyu actuellement ak confinement bi ñoo ñooñu mënatuñu am petit boulot yooyu. Mhm. donc soxla nañ ndimbal. am na également ñoo xam ne peut-être ñoo ngi ay pays africains peut-être confinement bi am na Afrique du Sud boo xam ne dañoo confiné lu bëri est-ce que ñooñu ñoo ngi jot dara ci gouvernement sud-africain Sénégal bi wax naa ko léegi président ne dafa ne 69 milliards pour un million de ménage mais ménage yooyu ay sénégalais lañ même si côté entreprise yi nee na aussi dans ce coup même bu amee chômage technique mu nekk sénégalais bu bañ nekk sénégalais quelle que soit entreprise bi au minimum dañuy fay 70 pour cent mais bu ñu def ménage yi c'est pour des sénégalais donc yeneen état yi aussi ci Afrique wala ci yeneen Amérique du Sud yu mel noonu Brésil Argentine. Mm. peut-être bu ñu koy def dañuy cibler d'abord seen waa réew. Mm. ñooñu soxla nañ ndimbal boobu pour ñu jot leen lan lañ mën def ñu ne dañuy mettre en place dans chaque juridiction benn comité boo xam ne ambassadeur moo ko jiite mu am consul général ci biir comité bi wala consul bi ñu am ku yor affaire consulaire wala affaire sociale mu am aussi comptable boo xam ne ministère des finance la mais moo nekk foofu yor xaalis bi mais également ñu dugal ci député de la diaspora parce que huit département la te député yooyu aussi waa département bi ñoo leen fal mais ñu bañ ko tëj ñu ne toute personne ressource bokk ci association yi bokk ci daayira wala mu nekk une personne ressource boo xam ne yaakaar nañ ne bu fa nekkee ci commité bi mën na leen dimbale ci xalaat ci veiller aussi pour mu am transparence ñu dugal ko li ñu leen laaj rek mooy quatre principes directeur intervention bi na mu am cohérence na mu am transparence na mu am également équité équité merce beaucoup dafa am lu moo am solo. ndax fii dañoo boole armée bi ci distribution yi foofu comme armée ba eggu fa. maa ngi noonu am na lu ñuy ragal fii. jeex na foofu loolu moo koy sécuriser. absolument na mu am aussi célérité. mu gaaw parce que urgence la ñu ne leen ay rapport périodique na ambassadeur bi di ko envoyer à la centrale. Mhm. fii ñu mettre en place un comité de gestion de crise comité boobu aussi ñu bañ ko tëj. hier rek ministre Amadou Ba ak man mii nii ak. Euh, responsable lu ministère bi jëm ko ci commission bi dem nañ ñu recevoir député la diaspora ñu ne duñ fa yem am na ñoo xam ne diaspora lañ jógee ñoo ngi ci conseil économique social et environnemental lañ leen invité ñu ñoo bokk ci loolu ñu ne duñ fa yem am na ay ambassadeur itinérant ñoo xam ne ci diaspora bi lañ jógee mais ay ambassadeur itinérant lañ leen dugal waa au conseil sax am nañ ci koo xam ne mu ngi diaspora bi actuellement mu ngi France moo tax teewul réunion boobu ñu ne à temps de manière périodique ñuy xool naka la ñee di liggéeyee bu laajee aussi ñu rectifier wala ñu corriger ñu mën ko def bu ñu amee aussi ay bonnes pratiques yoo xam ne am na ci telle juridiction ñeneen ñu mën ko adopté donc noonu lañu bëgg a liggéey yemuñ foofu ñu ne nag am na ñoo xam ne peut-être association yi mën a joxe seen tour parce que dina am formulaire dédié mu ne am na ñoo xam ne ñoo ngi ci biir foyer yi gis nañ aussi côté feebar bi peut être docteur mën na ci waxaat boo amee beneen âge bi dangay ngay gën a fragile. am nañ suñu papa suñu yaay yoo xam ne ñu ngi biir foyer yi aussi te ils sont exposés aujourd'hui ñooñu aussi si cible boobu la bokk ñu ne nag ñoo ngi créer benn plateforme boo xam ne maa ngi remercier aussi waa ADIE seen directeur général parce que vraiment fa la ñu ñoo ngi def ci ay jéego yu am solo ak suñu informaticien yi tey tey ce matin rek def nañ réunion bu am solo à la direction du passeport pour également ñu mën a accéder aussi au fichier à telle enseigne koy kuy remplir aussi nga mën a remplir ak sa numéro passeport pour ñu mën a vraiment xam ni kii kat moom la fii la nekk mu ngi ci telle ville mu ngi ci telle euh, euh, ville ah lii mooy profilam même ubbi nañ sax une fenêtre pour mu renseigner. ay doomam wala soxnaam bu fekkee ma ngi dund ak moom foofu wala boo xam ne mu ngi ci biir réew mi parce que dimbali diaspora aussi mooy dimbale ñoo xam ne. ñoo ngi ci biir réew. mais monsieur le ministre. donc parce que mais mais monsieur le ministre bu ñu la bu ñu la bàyyee nga développé nii. décision yi il faut il faut ñu dugg. man daal man daal yéen a ma invité yéen a ma invité ni ngeen ko bëggee rek. man moom pare na parce que dañ ko bàyyi ngeen ko bëggee rek. mais c'est important aussi comme diaspora la comme diaspora la. man ji. Euh, mooy décision unilatéraliste lu conseil du. non ah, ah, xam non mënuñu wax décision unilatérale xam nga problème bi aussi mooy la ku nekk. dafa am. cër maanaam du ñu associé Sénégalais yi si décision yi ñu ma ne ku koo gis rek dafa am cër moo tax. ñun secrétaire d'État boo xoolee def na peut-être 4 à 6 mois derrière dañoo defoon benn takk envoyé ko à consul yi ak ambassade ñu ne leen lañ jëm a dimbali aussi Sénégalais yi pour ñu gën a rafetal seen organisation. parce que bu ñu amoon par exemple ay fédération par état. maanaam association sénégalaise de France yëpp. mu constituer fédération. am un bureau am un président quelle que soit la configuration est-ce que day nekk kooku di nga am interlocuteur. loolu. du yomb yaakaar du yomb mais xam nga les choses faciles ont été déjà réalisées. man loolu la gëm. Mm. et comme disait l'autre aussi c'est pas le chemin qui mais c'est difficile qui le chemin. Mm. mën na am nañ liggéey parce que bu amoon tey ñu am ay bases données. yaakaar naa dans ce cas ci comité boobu dañuy wax quand même le président de la fédération de tel mu ngi ci dugg. am na pays yoo xam ne am na Mali bu ñu ko defee ambassadeur ba toog na ak ñoom ñu créé ainsi de suite dem nañ bëgg am cette fédération là en Gambie. am na am na ay pays yoo xam ne effectivement am na. am na pays yoo xam Turquie par exemple. c'est une fédération yooyu yëpp dafa am solo. donc loolu je pense que c'est un défi bu ñu war a def. te bu ñu ko defee aussi ñu mën a dem ci recensement recensement boobu aussi bu ñu demoon ba ñëpp mën a am carte consulaire. bi nga xam ne tey boo ma laajee ñaata Sénégalais ñoo nekk France ma cliqué rek nekk nii la ku nekk mu am traçabilité xam fu mu dëkk. c'est un défi mais c'est pas un défi qui est insurmontable mm, mm. le génie sénégalais va au-delà question de Charles Faye waaw man man man moom problème mm. mooy que euh, bassin bi on l'a pas ba léegi xamuñu ñaata nit ñoo concerné ci affaire bi

bu fekkente ne cent mille personnes ñoo concerné ça fait cent mille francs par personne du dëgg ça fait cent cent vingt mille francs par personne bu de un million de personnes ñoo concerné ça fait douze mille francs par personne douze mille francs par personne c'est moins de vingt dollars c'est dix-huit c'est ñaata la dix-huit euros et vingt dollars qu'est-ce c'est quoi douze mille francs CFA pour million de personnes ou cent vingt mille francs CFA pour cent millions de personnes ku si en Europe amul sens pour man amul sens pour man amul sens Europe cent vingt euh, qu'est-ce que tu vas faire avec cent vingt mille francs en Europe pour un mois amul sens donc pour man am na xalaat boo xamante ne est-ce que xalaat nañu par rapport à pourquoi pas un fonds pourquoi pas quelque chose parce que Sénégal tey am na ay relations bilatérales am na comme yaa ngi Portugal am na relation bilatérale ak Portugal am na relation bilatérale ak Espagne am na relation bilatérale ak dëkk yu nekk pour xam exactement yan si yan condition lay ay nitam ne fa naka lañ fa munee naka lañ fa munee est-ce qu'ils sont pris en charge par rapport à une politique intérieure est-ce que Sénégal est-ce que dëkk yooyu ñu ngi ko dul ñu ngi koy def buñ ko dul def tam ñu xool alors maintenant sur quelle base scientifique on va se on va travailler avec des associations pour toucher entre cent mille personnes ou un million ou un million de personnes nga xool que douze milliards dootul dara. amatul benn sens et sur quelle base. c'est douze milliards sur quelle base. le chiffre en fait ça ça vient d'où chiffre bi. waaw ndax dañuy tëb rek kii ko nii xam nga ñi comité scientifique peut-être moom mooy liggéey ne il nous faut 64 milliards. diaspora bi ñan la ñu impliqué au-delà des de vous. Euh, l'administration centrale ñan la ñu impliqué ba ne les besoins estimés nañ ko ci douze milliards. ok voilà est ce que c'est un chiffre qui sort excédé. waaw non non on va faire le tour de table. waaw waaw c'est bon Birima. il faut ñu revenir quand même.